ndax dëkk justiça nga fa tumuranke justice te du justice judiciaire kese justice sociale Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Casamance yéen waa Bignona yéen waa Sénégal bi ñu roodee ba ñu nee ñun ñëpp dem leen toog seen kër ndax dañoo feebar ñu jël suñu xaalis mënatuñoo dem liggéeyi cotiser jox leen pour dimbale la leen lan lañ def ci xaalis boobu lan lañ ko def est que ñu ko sàcc ba tey ci ñoom rek dem na ñu déglu ko rek fekkal ko sax chaise ak jox ko juge ci ci benn commissariat de police wala ci bureau de juge man mii de def naa 11 mois. parce que wax naa rek ci dëkk bi def naa 11 mois ci kaso bi kon ñu lekk suñu xaalis luubal ko bi ñu feebaree ak ñu yëpp di rawale seen bakkanu askan fii ñu ngi sàcc suñu xaalis pour ñu gën a dee ñu manqué le gaz manqué le oxygène est-ce que ñooñu wóolu ngeen ne wóolootu ngeen ci réew bu ngeen dégloo seen kàddu saa ñu waxee rek na mi dafa am pétrole ak xam ngeen ne muus bi bu commencé laal fu ñu ubbi te ay jën nekk fa rek du pour ko borom jën yi boppam la ci xalaat kon jamais au oh, plus grand jamais ñi nga xamante ne bu Sénégalais yi feebaree ñu leen di sàcc te mujjul fenn ñooñu di leen dégg suñu pétrole ak suñu gaz ku la sàcc benn yoon doo doo ko denc sa alal ku nga bind rey sa maam boo gisee lu mooy andi ku gis potentiel u Sénégal gis potentiel u Casamance gis potentiel bi Bignona nga xam ne dëkk bii kenn waru fi woon di yeewu di am problème mu koom-koom di yoon benn ndaw fi woon nekk am jafe-jafe liggéey parce que même boo mënul lii nga mën a béy te joolaa boo fi gis wala Casamance boo nga ne kenn la koo xamante ne ñeme na ay kañanu ñeme na risque yi ñeme na liggéey beneen bi may am ni un message de justice xam ngeen ne Sénégal yoon amu fi ñun ñii kenn gën a ñoo placé ñun ak ñu ñu àndal pour xam ne yoon amul ci dëkk bi. yow gën a jàng. yoon nag fu mu amul jàmm mënu faa sax. te jàmm jooju daay ñëw après yoon bi. Yon bi dafa and ak yoon ak Yon na ci kaw ni ñëpp jot ñëpp bokk ñëpp ñepp lu ñepp bok ñepp jot ci ma ngi wax wa senegal ne lima xam ci lu ñu def ci lempo gi xam ko ci li ñu def ci contrat minier yi xam ko ci li ñu ko def ci contrat ressources naturelles yi xam ngeen na kon kon bobu fokk ñu mu waat di jëri senegal ak di jëri senegal kon bu ngeen bëgge xam li ci pétrole bi ba ngeen bëggee xam li ci gaz bi ba ngeen bëggee xam li ci contrat minier yi ba ngeen bëggee xam li ci contrat ressources naturelles yëpp fan leen Diomaye je vous garantis ne contrat yëpp bu cliquer entre